jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu comme ni ma leen ko diggee woon sànq rek noonu laa leen ko xel di defee li ma leen wax chaque jour rek lépp loo xamante ne day doxal làmb wala lépp loo xamante ne dafa bokk ci làmb wasaare làmb day ñëw dox ci yitteel andi leen ko ba mu mat sëkk ni ma leen ko waxoon sànq maa ngi woon seet ki nga xamante ni mooy Ziza mi nga xamante ni moo ba a bëgg Petit Niang euh, ci Ziza laa jóge maa ngi nii toog ak Petit ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ci làmb ji waxtaan ak moom ci kay Petit Niang nuyu naa la aujubilaa bisimilah inna waane yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba ginnaaw bu ñu sant yàlla julli senente bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur xam nga di nuyu ñëpp di nuyu kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di jaani xaadir yeeg xam nga laa leen nekk ñaseen yi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu suñu papa ak suñu yaay ak suñu famille xam nga ñu ngi bëggee ñëpp waaw. fii ma la fekk fii fan la. fii fii mooy sama feef fii laa dëkk fi ma fekk nii fii laa dëkk fii mooy route de Boune voilà Euh, fi ma rëddoon ñaari avance nga jël. man jël naa ñaari avance loolu daa xew. Balla Gaye jël na kaat nga jël ñaar. waaw mais loolu daa xew sax comme Balla Gaye moo mën a jël ñaar waxuma laa ñun a ay xale lan nekk si làmb yaakaar si làmb kon war nañ mën a jël sax ba ñeenti avance ba cinq avance. mais lan ma war ñaari avance parce que sa premier combat bi nga xamante ni moom laa yëgoon sa diggante ak Brise de la woon ñu jékki-jékki jël dégg ne jël nga Ziza lu waral lool non Brise de Mer sama combat moom amagul date. Mhm. te promoteur bi xam nga ndax ndax waxtaan naa moom xam na ne xale laa xam nga bu ma nekk si làmb tamit tere samay waajur nga ma ci dugal du dëgg kon moo ma permettre xam nga pour ma jël beneen combat si diggante bi après moom dañu utal date. voilà loolu moo tax ma jël Ziza. lu war nga parce que maa ngi koy dégg nee na euh, ci moom laa jógee léegi am na ay yóbbante yu ba yu ma jox. yenn yi dinaa ko jukki waaye yenn yi xëy na peut-être après di nga ci jot. Euh, nee na keroog samedi dafa ñëw stade xaw ma dimanche nga gis ko mu jàpp baanu baanu tuuti nga xool ko xel sa xel nekk ci moom nga dugg ci moom la moo duggal ci Ziza. barki Serigne Touba Mbacke xooluma ko mu njàpp xooluma ko sama combat moom bañ ko dalee dox du tey bu yàlla rek yàlla moo ko tiim bañ ko dalee dox du tey yàgg na avant maa lekk maag Brise de Mer bi moom la waroon doon promoteur da ko seeti yoon mu ne bàyyi na bëre bëreetul nee na na Balla Gaye gàddaay woon moom tamit dafa demoon gàddaay. non bala Gaye taxawul ne bàyyi na moom daa taxaw ne bàyyi na moom daa taxaw ne bàyyi na yaa ngi comprendre léegi Assane Ndiaye proposé moo ko ma jël ko. loolu la ko Assane Ndiaye daa ñëw làmb ja ma ñëw làmb ja. loolu kañ la dimanche. dimanche combat. c'est Sokh Gamou Gueye. waaw daa ñëw làmb ja ma ñëw làmb ja Assane Ndiaye doon mu wutal adversaire nag ku nekk mu wutal moo wax dëgg neex yàlla ku nekk mu wutal moo ko nii tey suba fee lee suba nee lee maa ngi Tapha Leer la doon wax Tapha Leer xam dugal jàppal bàyyi mu dugg ci génn après génnaat si yaa bu fekkee moom nangu foofu ci biir stade bi parce que nee na ñëw na di la ñaan tàndama nga bañ xaw ma affaire yi demee noonu daal la jox ko sa waaw daa ñëw fekk ma yor benn tànn benn muus tàndal ma ni mu ñaan ma ne ko noonu ma laa may. c'est que lu tax mayu loo ko c'est lu ma koy maye su ma waxtaanee pare lu mu bëgg. maanaam ah, xanaa du soq saa ñu jot ci man sax lekk naa ci. waaw mais dëgg la man sax soq joxu ma ko. tànn dañ ma koo dénkoon ma téye sama loxo. ay ni ñaan ma ci nag ma ma ñaan nañ ma ci ma may leen. mais moom dafa maa ñaante mooy ma ko galaa may la gàtt jot. mais te loolu la mën nga koo jox mu saax lan demee la gàtt laa koy may muy saax mi moom du saax mi dara. déggu ma de làmb ji fa lañ jógee daal ñu xëy suba ñu proposé ma ko may déglu di xaar. ba noonu ba xëy suba ñu ne ma instant nangu na. la woon. waaw lundi mardi am vendredi daal la ma la ma ko wax ma ko proposé ma ko xam nga man leen waa am problème coo jubul bu ñëwee ñëw dama koy sant nag bu baax ci côté boobu parce que am na adversaire yu bëri yoo xam proposé nañ ma ko moom ñu bañ moom bu amee grandeur jël sama avance tam loolu dama ko sant bu baax a baax. loo mu bëgg laa daan nga koy sant. waaw xamul dama bu ko sant man damaa war a bëre te waru yi ma maa loolu moo tax moo koy sant ci côté boobu noonu mais bu weesoo loolu amul lenn lu ma koy sant tamit la même chose la wax nee na sant parce que moom ñu bay propose nañ ko ko mu bañ. moom ku koy ku ñu koy proposé. Ah, moom moo ko xam. na wax yàlla kan lañ ko proposé. nee na bay jox nañ ko avancé mu delloo la ñu delloo ko yow da lay sant bu baax a baax di la gërëm. nee na da lay bu baax. kan mooy delloo avancé am kooku. ah xaw ma xëy na mbëri. kenn delloowul avancé boo bëggee dégg-dégg man maa tax mu bëre. olof laa la man maa tax mu bëre. wala déggoo li ma la wax Ziza mu ne ma ma ne ko maa tax nga bëre kenn proposé wu la lenn maa tax nga bëre. mais yow boo santee yàlla bu pare man nga war a sant. waaw moo ngi lay seetaan bu santee yàlla man la ci war a teg maa tax mu bëre waaw. mais mais sa diggante ak moom la moo nekk coow li yéen signaté ngeen ñëw mel ni ku ñëw làmb yaa jël sama yëf maa jël sa yëf yaa ma saaga saagawloo ma ngeen andi coow li ñu doon bëgg sax dañ leen a mujjee fàtte luy problème bi. foofu laa ñëw nag nga muy ma jaxaseeg média yeeg taxaw naan dama koo saaga wala daal seeku maamul lu ma koy saaga seek ak moom la dugal lool si boppam man mënul guur sama maan di ma jéem a jaxaseeg àdduna loolu mënul ne seeku maam moom lu ma koy saaga yaa ngi comprendre daa ñëw taxaw ma ne ko carrément sa gémmiñ gi del boros saagaw ma ko seeku maam moom lu may saaga daa ñëw taw xet di ma raay ma ne ko sëñ bi del borosu maa wax loolu. loolu laa ko wax mais c'est que moom lu ma ko saagaa. sam benn ku ma àndaloon xam ma xaw ma ñoom ñaar luñ jotee. nee na parce que maa ngi dégg nee na ma euh, li mu yoroon moom li mu takkoon loolu ngeen bëggoon jël. heureusement moom dafa am ay mbokk avant muy ñëw wax nañ ko fen moo tax neen avant mu lay jege jot na koo dindi mais yéen loolu ngeen bëggoon a jël. barki Serigne tubaa Mbacke bu dee am nañ soxla ci li mu sol barki Alxuraan yàlla bu ma ko daan. billaay wallaay wa taalaay moo tax ma ne la ay mboox la mooy damaa dañ maa wax lool loolu bu mu am billaay bu dee damaa yaakaar ci yére bu mu sol wala lu mu tax yàlla bu ma ko daan ki sama combat moom si sama kàttan laa ko teg tegu ma ko fenn sama kàttan laa ko teg. ba pare nee na nee na bi muy bi muy bi muy bëree. adversaire yi mu daan ak yow yamu leen sax. mun na nekk man de moom musuma bëri làmb ñu ne àccam te musuma daw ci làmb lool loolu duma la ko wax xam nga si dara. musuma nekk di wërwërloo di dem di fii di def fi déedéet musul am sama àdduna damay ñëw wane fulla ak fayda ak jom lu ma yàlla may ma xam loolu la ma yàlla may mais kenn du ma ci biir làmb sama combat yëpp man may daan sama bopp kenn daanu ma kenn du jouer action ba daan ma. waaw ah, bii du demee noonu. dama la kenn du jouer action ba daan ma samay combat man maay def li may def man dogal yàlla fekk ma si mais du moom am kenn du ma manipuler man maay maa koy manipuler. maa koy def lu ma neex. mais démb lan nga doon xatakaay. dama dugg si si signature ba pare. ma génn noonu xama nga bëggatu si ñibbi si laa génne gis muy ñuy ñuy moom muy xa daw di xataraayu sama ku ma sama seex sama xarit sama lépp ku ma ma gis ko am moom muy xataraay ak moom ma ñëw ne ko carrément doo laal boo ko naree laal fi la ñuy laale léegi avant làmb léegi xam nga ñu jàppante xam nga xataraay affaire yooyu noonu am boo yoo xamante ne xam naa dañoo ñëwoon Pikine lañ dëkk ñoo seetaan si làmb ji foofu rek benn booy jóge fa la këf sama fulaar na nekk parce booy bi si biir laa ko fekk fulaar boobu nee ko xam nga la du dara su ko mënee déggoo ma de su bëgg. laaj naa ko sax nee ko jox ma ko ma yóbbaalal ko ko mais nee na moo ngi ci rakk ko su ko bëggee ko bëggee su su bëggee mu ñëw ba fii ma jox sama yére mu sax mu yóbbu ko. dugg ci loolu. ak sama diggante yàlla xanaa déggoo nan Adama nan la waxat noonu la sant ba nee na ma xam ma nan ba soo demee ne man maa ngi koy nuyu <laughs> ma ne ko ma ne ko la sant. moo la woon daa réer yàlla na yàlla bu mu. nee na dugg na ci combat bu yàgg. yàlla bu mu jinnee ko ba làmb ja. nee naa ko petit ñaa démb dégg naa ko mu ne kii daf may gën a duggoo ci làmb ji mu ne ma gis nga man bi ma duggee ci làmb ji daa. xanaa déggoo li ma moom daa gën a suux. dégg nga Adama nee na jàll la jàll. may wax léegi nii barki Serigne Touba Mbacke dugal na boppam gas na boppam mu suul yàlla bu mu jinneeku ba ba ma daan ko pare. te nee na ma nee na ma su bëggee nee na moom jour la nee na boo fekkee da ngaa gis ne dafa jël poids ba tax nga ñeme ko yaa ngi juum nee na su ngeen bëggee ngeen daw ci bi ba sonn ngeen doog ñëw sëgg ba wala ñu takk seen loxo ngeen taxaw jàkkaarloo yow ak moom. moom xanaa jël poids moo gis. non parce que na da koo ñemee parce que ni ko gisee noonu neen na moom athlète la nee na loolu daa ci moom. man jël poids moo ko gis xanaa. ak xeex bi nee naa ko petit ñaar dawul loolu. bon déjà kan la mos a xeexal. ah loolu de la ma wax. mos ngaa gis sama combat ma ñëw rek jàppante loolu mënul nekk sax man damaa xamul loolu. est-ce que moom moo xamul loolu wax ko man maa xam nga xeex ak yow. man xaw ma loolu. mu gis naa fay combat mu ñëw jàppante man xaw ma loolu. xaw ma loolu man mënu maa ñëw rek jàppante loolu sama deret sax sama diggante yàlla kon dina xeex moom par force. ah loolu mënul ñaax xanaa mu bañ. Hmm? mu bañ. non bañ kay Ziza ni ma ko gisee mu wax nii daa décidé. waaw ah, mais loolu xam nga xaw dafa garaaw mu ngi maa ngi dégg mu naan ay simb ak yooyu noonu moom moom mooy. simb bi fan la amoon. laaj ko ko moom. Ah, nee na ma ci bu weex la solo maa ko mu ni mu toog soo demee wax ma ko lool ne ko na bàyyi simb yi muy toog. xanaa déggoo li ma la moom na na wax simb si fan la amoon. yow laa ko laaj simb dafa amoon fii de. yow man déggoo ma de man sama kanam gii durut naa la koy simb yow. maa ngi moom da toog di seetaan la wax ci set ku sol ci set kay simbo. waxuma la sama kanam gi laa doon naa la kuy sax di taxawaalu ci ay simbo yow yow loolu loolu loolu moom moom est moom mu ngi si boppam sax lépp léppam jàmm moom. Sall laa ko fekk mu jugee Sall Sall. ba ñuy dem Sall yow moom lu ma la wax dara sax yow xam nga ñu. ma ba làmb ji tëjee ba làmb ji tëjee ba dinaan corona làmb dina amam du am boobu lañ doon liggéey. parce que Seydina Mohamed billaay wallaay loolu du ma la tax wax yow yow loolu duma la ko wax xam nga si dara. wala ba làmb tëjee ba muy metti ñi di tëdd di nelaw boobu lañ commencé liggéey am lu ñu ñaan yàlla nañu yàlla fay suñu coono si barke Seydina Mohamed coono bu ñu daj yàlla nañ ko yàlla fay. Euh, parce que combat bi euh, su ma juumul date bi sooyewul li fu mu toll. waaw ñu ci kawam ñu ngi dem sëñ ñu mboq ñu ñu war a dem yëpp ñu ngi fay dem xam nga waaw te duñu yam si ñooñu kese ñu dem génn fu ne lañuy dem wax dëgg yàlla préparé suñu làmb ñu ngi dem suñuy mboox daal lépp lu ñu war a nañ ko def incha allah balaa bis ba donte jàmp na tamit waaye lu ne xañ na fi waaw dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm ak tal ak fekkee xam nga ñu préparé si jàmm ak salaam loolu lañuy ñaan. état de forme bi. waaw si ñun moom duma wax sax état de forme dañuy liggéey rek lu ñuy liggéey rek lu yàlla def rek loolu ñu xam ne loolu la lu ñuy liggéey rek liggéey rek lañ xam. côté mobilisation bi parce que gis nañ ne fii booy boo fee defar ay t boo fee lijjanti ay ticket xam nga préparation bi lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci combat bi wala bonne volonté yi fi nekk. waaw man moom lu may wax bëriwul quoi di wax ni man moom wax dëgg yàlla ah musuma bëreel promoteur mu ne ma acam de musul am musuma ko fàttaliku te damay ñaan yàlla xam nga bii nekk bu bu raw barki alxuraanu karim di woo waa buun gépp ndax xam naa ni seen doom laa waaw ñii seen rax laa ñii seen xarit la ñii seen seen mag laa maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn. waaw surtout di woo waa Kër Massar tamit xam nga bàyyi ma leen ñoom tamit xam nga ci man lañ bokk waa Yëmbal ci man lañ bokk xam nga maa ngi woo ñëpp waa Caaroy waa Grand Yoff xam nga fépp fu nit nekk di bëgg Petit Niang rek maa lay woo di woo waa Kébémer bu baax a baax waa Maayaay tamit maa leen woo waa sama village boobu maa leen wo ñu ñëw jàpp si ñoom ñëpp xam nga bàyyiwuñu kenn daal di mboq woo sama mbokk pël waaw seen doom moom combat te pël dafa war mën a sot waaw dama bëgg ñu ñëw. bu ñu euh, jàpp daraam. nañ ma ñu la ko jàppal. bu ñu jàpp daraam nañ ma sot la rek. Euh. waaw nañ ñëw yokku ma doole rek bak sëñ Bamba. doom ba sax si sot la waaw man nañ ñëw yokku ma doole rek man. waaw gis leen xam nga mooy loolu loolu laay ñaan ci ñoom. waaw ñu xam nga ñëw bëgg bëgg neexal esaat ba mu neex nag barke sëñ baam di ko wan nit làmb moom xas ba bana banaa ba nga mënutoo bokk. ndax Dakar du saf ñaari yoon. munul nekk munul saf ñaari yoon man sax bu ma ko màccee bu dee Dakar bi maa ko màcc. munul sax lu war a niróo teg Dakar <laughs> du niróo teg Dakar. baat moo bu dee maa ko màcc. waxuma la da nga da nga Dakar saf ñaari yoon. waaw yow mun ko màcc sax nit gis ko xam nga am fu mu ko foree jëlaat ko dugalaat ko ci gémminam même bu ma ko gisee ba xolle ko noonu xolle bi wow affaire bu wow wow dama koy yëy. mbaa doo ci moo ci bàyyi dara. combat bi bañ ma si dara barke sëñ Bamba parce que dañ maa dañ maa yaakaar quoi man xale laa xam ma ñu sas ma xam ma defuma dara lamb rek laay def sama papa xam ma di ma jàppale sama yaay tamit di ma soutenir ci côté yëpp xam ma kon ama leen ñaan rek xam ma ñu gën maa ñaanal gën ma yokku ñaan parce que da ngay toll fenn foo xamante ne ñaan ngay soxla sa life xam ma ñu ñaanal bu baax seen doom dañ ko ñaanal bëgg naa te bëgg naa leen teral si làmb wax dëgg yàlla ma leen teral leen ci làmb te làmb daa jël sama temps lu mu jël sama temps dafa bari moo tax foog ma xam ma foog ñu ñaanal ma bu baax a baax a baax yàlla génne ma ci li ma dugg nii xam ma mais ma si jàmm ak salaam parce que xam ma ay xale lañ bëgg nañ lu ñuy def kenn du ñu gis ba jéppi ñu xam ma kenn du ñu gis yu ñaax fayda waaw dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu jàmm suturaal ñu fay ñu suñu coono yàlla nañu yàlla fay suñu coono waaw te dama koy wax ne Ziza moom ragal mu ndaw weesu nga ñëw signature di ànd ak ay ay junni mbër ay man ba may ñëw gis nga ñaar ma àndal ñu ngi nii toog ñaar ñi laa àndal moo lay wane man yaakaaruma ci kenn ci yàlla laa yaakaar yaa ngi comprendre nañ bàyyi yooyu dañoo ñëwoon signature pour neexal signature bi jaay suñu combat li lañ ci bëgg yaa ngi nii tey da ngaa déplacé wu ñëw waaw dañuy jaay suñu combat suñu mbokk ñëw. loolu sax dinaa ci yokk tuuti nee na euh, li nga def démb danga nga bëgg roy ci Balla Gaye Balla Gaye moom moo ko wax lii Balla di def mënuloo ko nee na ngeen bàyyi bu ngeen ñëwee di bëgg di roy nit di ànd ay ay ay attroupement te signature dong la ñuy def loolu la ma yóbbante. amee ah, mais ma de bu ñuy roy roy nañ si koo xamante ne làmb xam nañ ko koo xamante ne kenn mësu koo jépp ci dara kooku koo dafa jar a ci ku ñuy roy kook dafa jar te dañuy ñaan yàlla chaque jour ñuy roy ci moom ba keroog ñuy bàyyi lañuy def moom na jël loolu mu teg ko ndale waaw di nga wane nit xam nga combat bi dama ko bëggoon kii sax mu woon def dara sax ndax booy ñaa mais am ma foog ma def ko dara ndax xam nga booy bi kii dafa kii quoi boo ñaam ma doon seet sax bàyyi naa ko. waaw ciy génne. non boo ñaa laa doon seet moo taxoon ma la démb damaa gën a dugal si combat bi waaw. xam nga ma ndax geste bu mu def. voilà loolu moo tax man damay gën a dugal ci combat bi boo ñaam moo taxoon xam ma may xaw a cof noon tuuti rek mais damay gën a dugg ci combat bi. seetatoo ci kenn. seetatuma ci kenn seetatuma ci kenn. xam naa ko bu baax kooku dama ko dama ko xam bu baax. loolu nga wax gaaw na da xam. xam naa ko bu baax li ma xam ci moom moo bari boog sa ménagère moo nekk seen écurie ki ma yor sam papa Burkhane Wade moo nekk seen écurie ah déggoo li ma na ci Boy Niang. fu mu ne. écurie Ramdan. loolu affaire am la mais en tout cas jàmm sa faa jaar. Moustapha jaar jaar na fa waaw kon jeex na. Eh, Massi Zeng tamit xam naa jóge na fa de war bu jógee fële si Boña war naa jóge Massi Zeng. <laughs> <laughs> waaw bu jógee si Boña war naa jóge Massi Zeng kay. waaw ah waaw boo jógee kay da ngay jóge rek. boo jógee da ngay jóge rek ñu ñu ñu tàggatoo tëj maa ngi nuyu Aziz Aziz bu Potignan ak Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñooñu samay nit lañ samay xarit lañ xama ak ñaan ñi nga xamante ne ñu nga fekk muy prince ak yaa dama leen ñaan xam ñu gën a jàpp xam na seen seen seen doom xam seen rax xam seen xarit seen mag moom moo xewle nañ ñëw jàpp bu baax a baax man loolu laa leen wax quoi ama di wax sama xarit yëpp ay ñoom Papa Kane ñoom Diaz ñoom Ali Kane Alpha Omar Ameth Diop xam ñu fi nekk ay ay xaaf ma kenn suma ma limee damay jum ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal si koñ foo ndoog ñoom ba ma nekk xale ba ni ma toll nii maa leen woo ñoom ñëpp ci combat bi di ci woo Grand moor li may wax na ma ko génneel te yàlla tax. léppay jàll. Grand Mor papay maam Cheikh Ibra bébé maa ngi koy woo baax Mor Griot maa ngi koy woo baax mu jàpp si Grand Tafa Touba maa ngi koy woo baax mu jàpp si nuuru maa ngi koy woo bu baax mu jàpp si. meeru Kër Massar musuma jàppale. mais Kër Masar. Masar musuma jàppale ngalla maa ngay mu jàppale ma ci ko. yaa ngi doon dem ci moom. maa ngi fa doon dem mais mu demee du ma ko gis xam nga Pape Moussa maa ngi koy woo Issa kan sama mag maa ngi koy woo surtout Nourou xam nga maa ngi koy woo moom tamit bàyyi ma kenn suma ma limee damay juum xam nga sama papa nag ak sama yaay ma ngi wax ñu ñaanal bu baax waaw dañ ma ñaanal bu baax a baax a baax sama papa combat bi moom moo tax ma jël ko sama waxee suma ma waxul xam na moom moo tax ma jël ko dama koy ñaan xam mu yokk mu ñaan bu baax a baax di ñaanal suñu waa écurie ñu fa am combat yàlla may leen ndam ñu ci mel ni Paul Jackson ak Fata ak Kirikou xam nga gaa maa leen ñaanal yàlla may leen ndam ak Zilo maa leen ñaanal yàlla may leen ndam waaw di woo ñëpp daal di woo waa buun gépp bàyyi ma kenn wo woo waa Espoir mafia laal ci bër bi xam nga mafia waa Los xam nga waa maa ngi woo ñëpp baay ma kenn xam nga wasalaam di woo ñëpp bàyyi ma Aliou Diallo Aliou Diallo depuis États-Unis tamit maa ngi koy woo jàpp si Cheikh Dieng maa ngi koy mu jàpp si bu baax a baax tamit xam nga maa ngi koy mu jàpp si depuis moom tamit maa ngi koy sama papa bu nekk Mauritanie maa ngi koy woo mu jàpp si. xam nga bàyyi ma kenn su ma limee juum maa ngi woo ñëpp baay ma kenn woo naa ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi may béggee ma jaaxaaloo ci caméra bi nanga ñëw jàppale sa doom sa rax sa xarit doom buun bi moo war a bëri le 4 juillet gis ngeen ni mu leen ko digalee woon rek noonu laa leen ko defalee seeti naa ki nga xamante ni mooy Ziza maa ngi nii ci Petit Niang euh, jóge naa ci taqe suñ fa jógee di dem feneen ak feneen làmb dong moo ñu ñor moom la ñuy moom leen leen andil xanaa di jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb aadama jaajëf.